fep fu wayo nek rek ñu lay nuyu baax di lay ziar di la ñaanal jamm te di sàkku ci yow ñaan itam di ndokkel mbokki auditeur yi mbokki auditeur yu Baol ja FM gor jigen mak ndaw fu way mëna nek rek ñu ngi di nuyu baax comme fiñ leen waxo di nuyu ci ma ja ci 88.5 ci xal bi nga xamne mo deumal dëgmal dëkkab Bamba khadi marsoul ci jamono ci lañu nek ni ñu ngi mbekté bu baax tay ziaré mboolem ñi nga xam ne ngi xel ci YouTube itam ak Facebook fépp foo mën a nekk itam ñu ngi leen ci nuyu di leen bàyyi xel foofu ndax fu ci ne rek mën nañu fay bàyyee fu ci ne te mën nañu faa diglu ci mbooleem plateforme yi Baol Médias FM yëpp comme ni ko baaxoo defee rek ci jotaay yi jotaay yi xam-xam yi jotaay yi xam yi nga xam ne baaxoo nañ koo ànd ak boroom xam-xam yi waaye baaxoo nañ koo ànd ak ay ñi nga xam ne ay kii lañu maanaam ay nit yi la lasaraar lañu di yëngu ci wàllam xam-xam na mën nañoo ànd ak ñoom ci ay jotaay yu fasantikoo te nag ñu fa yéene ànd ak sëriñ Cheikh ma Tidiane Diop Al Maktoum lañ na maandal ci biir jotaay fas yéene seq ak moom ay laaj ak i tontu yu jëm ci xam-xam ndax comme ni ma ko baaxoo waxee rek xam-xam moom ki nga xam ne dafa da am faaw rek mu génnee ko jox ko nit ñi ñu gën cee mën a bàyyi xel gën koo xam ndax. Euh, damay faral di dégg ñu naan xam-xam xaw ma da caa bokkut ki xamul nag daa waral a laaj ki xam ki xam xamal ki xamul looloo waral jotaay yu mel nii nga xam ne dañ koy am ci Baol Médias FM ñu fas yéene ci ànd ak kilifa waaye fas yéene ci ànd akub soppe ci ànd ak borom xam-xam di ñaan yàlla rek suñu borom subhanahu wa taala ci barkeb sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi ñu dokkee door ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla tamit yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp da ñu lépp ci ngërëmal sëriñ duba waaye tamit lépp jëlee ci ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala ci barkeb sëriñ Saliou kon cheikh bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar xam naa dama lay daal di jox rek nga nuyoog mbokk yi nuyoog soppe yi nuyoog xarit yi nuyoog wëllëre yeeg am di jàmm yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Baol Médias FM 88 point 5 di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh Ahmad Tidiane wa aleyka salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أصبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء ونعوذ بك من سيرة اللسن وفضول الهزر كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحسر ونستكفي بك الافتتان بإدراء المادي وإغداء المسامح كما نستكفي بك الانتصاب لإدراء القادي وهدك الفادي ونستغفرك من سوق السهوات إلى سوق السبهات كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى قطة القتئات ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد وقلبا متقلبا مع الحق ونطقا مؤيدا بالهجة والصلاة والسلام على خير السلف والخلف القائل أرواح جنود مجندة فما تعرف من أتلف وما تناكر من اختلف وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والصرف wa man ihtada bi hadihim wasanna bi sunnatihim wastarsara bi rusdihim ila yawmi diin mbokk yi nga xam ne yéen ak ñuy bàyyi xel dinu déglu ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi te ngeen doon bàyyi xel bawal euh, média fm bi nga xam ni mu ngi ci barab bu tedd bii di Mbàkke te Mbàkke ku ko tudd tudd tuubaa bañ na ko ba dogit la ci tuubaa mooy waral ñu ni Touba Mbàkke <laughs> tabaarakallaahu ñu nuyu leen ci mboolem ku dan bayyi xel bawol media ak ko xamni ni sunu yi motax mu bayyi ko xel ak ko xamni dana ko bayyi ji xel ëlëk ak ku mëna tax ñoñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yalla xéewalam ak suturam mom yalla moko ko yalla nako ko dotti saxal ko ci seen kaw waye nuyo bobu ak ziyara bi ñu jiital ci Serigne muntaha mom mi nga xamni mom la yalla dogal mu représenté yonti yalla Muhammadu ci bu yiile gox ak fepp ci aduna bi ci liggéeyam bu rafet ci mbaxam ci yaatalam ñu nuyu ko ziyaar ko nii sunu xalif général muy Serigne Mbaye Sy Mansour ca Tiwaawan ak mboolem ñi nga xam ni ñi ngi ci dëkk bi di doxal diine ak ci àdduna bi di doxal diine kum ci doon rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi nga xam ne sunu borom moo nu ko sant ñu di ko nuyoonte ci sunu biir mu réel ko fonk ko ba pare warlu ni suñ leen ko nuyoo fay gi farata la ba tax mu ni suñ leen ko nuyoo na ngeen fay bu gën a rafet mbaa ngeen fay bu ni toll te mooy baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon ñu ngi lay fay di la ndokkeel di kontaan tamit ci dalal gi ngeen ñu dalal ci seen barab bu tedd bu màgg bi te muy bawal média di ñaan yàlla yàlla nu yàlla yaatalal te dolli sutura di nuyu it ñi nu bàyyi ci daara ji léegi nga xam ni bu nu ñëwee euh, ci dëkk bu tedd bi ñoom ñoo tax ña ci jiitu euh, tabarakallah di sëriñ masamba mbàkke mi nga xam ni moom moo tax ñu ñëw fi di dongab xelkom di jambar moog waa xelkom yépp ñu di leen nuyu ndax suñu ñëwee ci dëkk bi ñoom ñoo tax suñu ci noppee ñu nuyu soxna jaara mi nga xam ni soxna jaara faal nga xam ni tabaarakallahu euh, muy borom daara tabaarakallahu tuuba poroxaan di jàmbaar di tàggat ay gone di leen jàngal alquran yor ay soxna jaara ci daaraam ji yoo xam ni comme nañuy def ca poroxaan noona lay def du nu fay du ñu def dara mm-hmm. moom it ñu di ko nuyu ziyaara ko ñaanal ko yàlla yal na yàlla dolli leen taxawu di tënk ci nuyoo mooy ñu ngi nuyu jullit yëpp ñu ngi mm-hmm. nuyu doomu aadama yëpp yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ما شاء الله جرجف جرجف شيخ احمد تيجان جوب المكتوم تي نيو بو سيت بو سيل بي بو ماغ بو ماتالي بي داي واخ عربي واخ خير الكلام ما خلا با دال نيو بي الله ما سلنا جوتالنا ليب ما شاء الله كون ني لاي دالو لي زيار باخ دي نوكل تي جوتاي بي كوم نين كو واخي وان رك تي سوني جلباني واخ ايميشن بي بوب euh mbollem ñinga xamne ñingi ci bitti tay baye xel Euh, te bëgg xam-xam te fonk xam-xam ci wàllam lasaar ak la ci aju incha allah rabbi moom lañ fi ne ma waxtaane ah, ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ci biti incha allah mën na ànd ak ñun ci kanam tuuti ci jotaay bi nga xam ne nam nañ ko ànd ak Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al ci jotaay bi ci Baol Medias FM ngir lépp loola xañ ne loola jaaxal wala loo bëgg xam moo xam ci saw yaram la moo xam ci ay gént ak la ci aju incha allah rabbi nam nañ ci ànd ak Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al Maktoum waaye tamit ngeen mën a ànd ak ñun ci 88 629 05 incha allah ci kanam surtout bu ñu développé waxtaan ak kilifa gi ci ci wàll woowu. xam naa cheikh bi dañuy tàmbale rek ci seet jàpp naa ne ku ne lasaraar na seet waaye avant ñi dugg ci seet gi dañoo bëgg a xam rek tuuti rek ci lasaraar maanaam maam xam naa lasaraar waaye tamit lan mooy lasaraar ndax bu ñu ne lasaraar ne ñaan jàpp naa ne bari na ay euh, xalaaqaat yu am ci diggante bi. ñaan ak lasraar waaye tamit ak ak faj xam ci lool rek bu ñu ci mënee tënkal tuuti rek ci ak leeral incha allah rabbi ñu mën a dugg ci yeneen détails incha allah si amat bi tabaarakallaahu sëriñ ñu ngi lay ndokkeel sëñ Modou sëñ Ibrahim sëñ Ibrahim ñu ngi lay ndokkeel di la ziyaara bu baax ci question bu am solo bi nga laaj mm-hmm. nga xam ni question la boo xam ni mm-hmm. su ko ñëpp xamoon njaxas dina jóge ci xam-xam boobu ñuy woowee xam-xamu lasraar mm-hmm. xam-xamu lasraar lépp lu la ci waay mën a wax mhm. su génnee yii ma wax tuddatul lasraar mhm. lasraar nag buñ ko waxee ñaari baat la benn ñu ni lasraar bi siin al muajam mhm. wala lasraar bisiin siin al muhmal lasraar nag bi siin al moo gën a bari léegi ci àdduna bi te mooy lasraar boo xam ne yàlla gërëmu ko mooy al ashraar jamu charru bokkul ak al asraar jamu sirru nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo moo koy yënkawal ku ko neex mhm. ci jamono mu natt am ñu xam daf ko junj wax ni wa allamnaahu min la ladunna ilman mhm. ku mel ni xadir mu wax ni man yàlla ma jël ci xam-xam yi ma denc dëxañoon ko joxuma ko kenn ma xamal ko ci noonu la yàlla tànnee ñi ko neex ci jaamam ñi mu tànn leen kenn par kenn di leen ci may loolu mooy lasraar su fekkee ñun ci waa xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. buñ la waxee lasraar li mu war a firi mooy alquranul karim la la yàlla yónnee mu nekk téereb sharia mhm. nekk téereb histoire nga di ko jëfandikoo mhm. waaye am ay sekkere xéewal yu ci yàlla dëxëñ mhm. muy faj soxla di mën a firi ay kéemaan yoo xamante ni war nga ci jaar war nga ci dund kéemtalaayal xam googu yàlla di la ko xamal nga wéetoo ko nga xam alxuraan ñépp a ko bokk di ko jàngandoo di ko xam waaye ñi ci yàlla tànn kenn par kenn xamal leen sekkere ya ca nekk ñooñu ñooy ëhlul asraar ñooñu ñoo xam lu ñuy tuddee asraar mhm. asraar boo koy firi jamono sirru la mhm. sirru mooy sekkere su demee ba late rek tuddatul secret xam nga dañuy wax asraar fekk am na ku lay woo ci asraar fekk azhar la yoon mooy lu ñuy siiwal mhm. su demee bay siiw rek dootul asraar asraar mooy li nga xam da nga koo dëxañoo xam ko yow ci sa diggante gi sa borom lii tax nga am ko nag sa jaamu yàlla gu sell lay doon ginnaaw bi nga xamee ni jàng nga moo tax jàng ko rek du doy waaye jaamu yàlla gu sell mooy tax nga am mbóoti lasraar su fekkee nag yàlla dogal na ci mbaaxam ak suturaam nga jàng ko ba pare ndax dafa am ay règle yoo koy jàngee ba pare ginnaaw bi nga jàngee alquran jàng sariya dégg diine ndax wa man yuridullah bihi xayr yu faqihu fi diin yàlla ku mu nammal xéewal nammal la sutura nammal la teraanga dafay fexe ba nga dégg diine soo déggee diine ba pare nag moom may la nga di ko jëfe mbooti jëfe googu ngay jëfe xam-xam yooyu nga jàng ci sa euh, diine mhm. mbóot yooyu nag moom la ñuy wax lasraar su ko defee ci ngay xamee mhm. euh, bu fekkee euh, lu mel ni ilmul xawaatim mhm. xaatim aw faax yeeg la ci lu dellu ci li nga junj sànq ci biir wax muy wàllu firi gént mu dellu ci ilmul kasf nga xam ne ci la ñuy nu mu tuddati dafay listixaaraat yi ak yu ni demee yooyu ginnaaw bi nga jàngee ba pare nag da ngay jàng fànnam nga jàng fannam ñu mhm. xamal la ne xaatim nii lañ koy daggee waxtu wi heure bii cuuraay bii lay àndal buñ koy dagg ñu jàngal la loolu suñu la ko jàngalee ba pare nag mhm. mbóot yi nga ciy am muy say jagle bopp loolu sëriñ bi la ko jàngal du la ko jox waaye sag sell moo la koy jox mhm. ndax lan wattaqullaha wa yuallimukumullah yàlla nee na bu ngeen bëggee ma dolli leen xam-xam seen ay surprise bu boobaa nag kenn du leen ko jox yéen a may ragal rek ma jox leen loolu soo bëggee tënk lasraar mooy alquranul karim ki ko jàng ba pare dégg baat yi mën koo firi waaye nag baat yi secret yi ci dëxëñu nga dem jaamu ji yàlla ba mu xamal la ko xamal googu mu la koy xamal kooko lañ naan borom lasraar bu boobaa mën naa fekk loo xam ne ci zahir narul woon nekk moom mu wax yàlla mu nekkal ko yàlla nekkal ko masalan koo xam ni fanam narul woon gudd mu ñaan yàlla kooka fanam gudd yàlla da koy nangul fekk def ko composé ci ay secret yoo xam ne yàlla waxoon ne lii kat ndax wa min al asmaai ismun ida daa allahu bihi yujibuk ci tur yi nekk na ci tur woo xam ne boo ci ñaanee yàlla mu wuyu la tur woowu nag yàlla def ko dëxëñ ëhlul asraar la koy xamal par loolu soo bëggee tënk lasraar mooy xam-xamu lasraar macha allah ki ko xam moom lañuy wax ne diwkat boroom lasraar la waaye su fekkee kuy wër di wootee ka wax kooku moom diw borom lëzhër la su fekkee kuy jëfandikoo lu xaraam foofu tamit ñu dégg ko bàyyi ko xel lépp loo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo su laalee fépp ci lu xaraam rek nekkatul lasraar ndax lasraar mooy loo xam ne dafa sell sunu borom gërëm ko mag ñi ci lañ nekkoon ba am na ñu nekk Serigne Touba ci la nekkoon ci lasraar xam-xam bi cër bi mhm. tooge ci mhm. Cheikh Siraaj Malik ci la nekkoon mhm. imaamu Junaydi imaamu Ghazali ku benn Ghazali sax lim ci taalif kenn xamul nu mu toll loolu ñooñu ñooy doon ay boromi lasraar kooku nag moo sañ ñaan yàlla ci cadre lasraar yàlla defal ko waaye nag dañ koy jaawaleek ci wàllu jinne loolu danañ ci ñëw après incha allah rabbi ah macha allah jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al Maktoum tabarkalla yaakaar naa ne taxrif boobu leer na ki nga xam ne mi ngi déglu yaakaar naa bu déggee li ni mel xam na ne eh, li nga taxarif ci lasraar yaakaar naa mom moom lu leer la tafsir bu leer la eh, comme ni nga ko waxee léegi rek ci ni ñu ko waxee woon sax si suñu nyan wax si Amad Tidiane Diop al Maktoum mu yëngu ci wàllam ñaan ñaan waaye tamit ni nga ko waxee léegi rek ñaan ci alquran waaye tamit ci fànni ñaan yëpp ndax itam ñu ne ñaan moom ki ñu ñaan kenn la mooy sunu borom te si Amad Tidiane yaakaar naa ne léegi rek dégg nañ ko ci waxam moom day ñaan ci sunu borom waaye tamit di wakkilu ci alquran di jëfandikoo ci alquran di liggéeyal jaami yàlla yi ngir di leen fajal seeni xaajo Cheikh amadou Tidiane Diop nag mi ngi nekkee Mbàkke nam na dina nekk ci Mbàkke Mbàkke ñaari Baye Fall ci ci daaray Maam Jaara eh, dina nekk tamit Touba ci Xayra eh, kër sëñ Masamba eh, kër sëñ Masamba xelkom waaw kër sëñ Masamba xelkom ci Xayra dina fa dina fa nekk itam incha allah rabbi moom sëriñ ma moom sëriñ Cheikh amadou Tidiane Diop Al Maktoum yaakaar naa ne Euh, ni mu ko waxee léegi ni mu ko waxee léegi rek ci lasaraar dafa mel ne léegi métier mi dafa mel ne dafa yaatu yaatu na lu bëree bëree bëri ku ci ku ci ne di jëfandikoo ci yeneen xeet ci ay seet seet dafa mel ne da bëri ay ay xeeti seetin yu nit ñi di seete léegi Cheikh Ahmad Tidiane bu ñu doon wax ci yan xeetu seet ci lay seet lay seete ak tey bu ñu mënee wax am ne yan xeetu seet moo am tamit ci seeta ci xeeti seetin yi itam pour ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Baolmedias FM ak di bàyyi xel Cheikh Ahmad Tidiane Diop mën ko mën koo ràññee tabaarakallaahu su fekkee eh, yan xeeti seet ñoo am xeeti seet yi dañoo bari mhm. waaye boo leen di segg tamit yu ci bari ya ci ëpp dañoo xaraam moom seet waaw seet façon mhm. seet yi mhm. bari lool waaye ya ci ëpp dañoo xaraam maanaam seet ci boppam d'abord balaa muy mën a tudd seet di am di dagan listixaar lay tudd listixaar listixaar listixaar nag moo am ay darajaat yoo xam ni ci la wuute ndax bu ñu nee xaar mooy ki nga xam ni dafay seet mbir mi bala mu koo dugg ak tànn loo ci yàlla la gën mu jot ca la baaxul ci moom mu mucc ca bu boobaa lay dagan nga xam ni li kii di def dagan na boo ñëwee ci cadre seet nag am na ñoo xam ci suuf la ñuy seet mooy ñi nga xam dañuy jëfandikoo ram la xam-xam bu ñuy wax ram la dañ koy jàng ñun ñiy jàng nañ ko ci daara ji ndax ñu man yi baax ci xam-xamu euh, asraar yi ci baax tabaarakallaahu yàlla defal na ma sutura jàng naa leen yi nga xam ne dafa dellu ci wàllu xam-xam bu ñuul ak yenn yenn ya mu demee mhm. yàlla defal na ma sutura gëstu naa leen parce que sama turandoo moo daan wax ni mhm. xam lépp moo gën réere ko mhm. wax nga léegi ci bi ngay ubbi ni euh, xam-xam xaw ma bokku ca li baax ak li bon lépp da nga caa war a tontu tontu gi jëmmi xam la waaye nag yàlla du topp nit ci li mu xam waaye li mu jëfe la koy topp yàlla li mu jëfe la koy topp bon xam nga du la wàññi dara. Mm-hmm. tabaarakallaa jamono bi nga nekkee di julli ak di jaamu yàlla takk soxna yor ko. Mm-hmm. yow booba xam nga nu ñuy njaaloo waaye yàlla du la bindal bakkaaru xam gi ko xam. Mm-hmm. mi ngi lay bindal yoolu jëfe gi ngay jëfe lu baax bàyyi njaaloo gi noonu la xam-xam bi demee. bu fekkee seet. dafa am ñoo xam ne ci ndox lañ koy defee. parce que dafa am koo xam ne yu ëpp ci xeet yooyu njabar la. ci xeetu seetu ndox. ak pettaaw. yooyu yëpp ci xeetu njabar la bokk fànn la ci njabar mhm. am maa kan seet nag bi nga xam ne moom la sharia d'accord mhm. mooy na ni ko texte bi yonent bi jàngalee ko bu paasee loolu mhm. mu dellu ci li ma la waxoon mooy tarixatul kasf mooy ñu jox la ay isbu ci min asmaa illaahi nga di leen jàng ñu am tarbiya boo xam ne dañ la koy jox nga di ko tarbiya di jàng tur yi ci ab lim loola danga ko def ay at yu bari fekk yow doo seet ndax da nga dul mën mhm. ku mel ni man ci wàllu daara ji bi ma tolle ci loolu mhm. maanaam ismu bi may seetee tey mhm. tarbiya naa ko juróom-ñaari at te mënoo cee seet virgule tarbiya naa ko juróom-ñaari at ci sama sëriñ te boobu da yor tur wi di ko jàng subaak ngoon te doo ci mën a seet léegi nag boo demee ba am ci tariqatul kasf fa kasaf naa an ka xita ak fa basarukal yow ma xadid léegi bunt yi ubbeeku bu boobaa am na sax koo xam ne bu bi mu la dikkalee toog ci sa keppaar waxagula dara yàlla dina la xamal ay mbiram léegi nag bu boobaa euh, la ñuy bëgg bu boobaa ci sa façon seetin bi nga xam dana dagat mhm. nga laaj mbokk mi turam laaj ko turu yaayam laaj ko at yi mu am nga adat ko day jàpp jëmm ji origine am nga xam ni du am na Ibrahima am na mhm. yow Ibrahima su ma ni woon euh, noo tudd nga ni ma Ibrahima mhm. Ibrahima jooju su ma liggéeyoon ci Ibrahima bi ñaata junni Ibrahima ñooy ñëw ci kaw suuf soo doon def recherche léegi ci ci internet bi mhm. soo bindee Ibrahima ay junni junni Ibrahima lañ lay bindal mhm. waaye soo bindee Ibrahima Baol Média mhm. yow la ñuy génne ak li Ibrahima yi di bari ci àdduna bi yëpp yow la ñuy yaay génn noonu la génnee tur turu yaay ak at di def jëmm ji ngay seetal mooy bu boobaa moom ci boppam ngay gis dootoo gis keneen beneen ku mbokkal tur ak ku mbokkal yaay ak ku mbokkal doo leen gis moom ngay gis su boobaa nag li nga gis ci sa boroom may la ko mu nekk ay yëg-yëg mhm. di ay ilham yu la yàlla di ilham ci ay mbiram mhm. bu boobaa nga xibaare ko ko loolu day dagal dégg nga mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa toog daan na toog moom dafa amoon bi kas kasf nga xam moom du ko du fi nekk di di di dara nit daan na jógee fële pour nga xam ni kas euh, fu wàll yooyu dina dinay mën a am ci kaddu mbaaxu yàlla nit daan na jóge fële benn saabi yu ñëw na seet si ko ni ko sang bi man de damaa bëggoon nga dimbalee ma lu ma dundee maak samay njaboot ndax yoruma dara mhm. yonent bi yëkkati dara jox ko ba pare mhm. mu wane ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sahaaba yi mu toogal ah kii de moom mi ngi wuti lu mu dundee mu jëm déwén te moom ay fan yu néew ko dese ci àdduna <laughs> wallaahi mhm. waa ji dem ba ca déwén nga mu dellu siwaat ci yonent bi sallallahu alayhi pour nga xam ni nit dina la dikkal nga nga nga xam ay mbiram ci mbaaxu yàlla yonent bi loolu la ko yàlla defaloon waaye waa ji bi mu demee ba ca déwén sa mu dellu si pour nga xam sarax ak ñaan njariñ bi importance bi ñu am mhm. waa ji del si ba yi xoolante ñi ko fekke woon mhm. posé wu question ci ni yonent bi waxoon na ni kii li ko des si ay fan euh, bëriwul mhm. te ci diwoon si del si na yonent bi sallallahu alayhi wa laaj jibril mu ni ko keroog la nga ko joxoon ba mu génnee da koo saraxe looloo waral yàlla dolli ci ay atam juróom fukk kon nga déggee ci ni tabaarakallaahu seet moom dafa bari ay fànn mhm. waaye soo ñëwee ci fànn yi ci dagan mhm. fànn yi ci daja mhm. dagan ba jiitu mooy listixaar bil ixtiyaariya mooy dangay ngay bëgg a dugg ci mbir da ngay bëgg a takk soxna dangay ngay bëgg am kër nga dem gëstu ko ci ay nelaw ci ci ci ay euh, aayaat yoo xam da nga koy jàng ci tëraay yàlla wan la dara ci gént nga wax boroom mbaa nga def ko yàlla wan ko moom mi nga xam mooy borom mu defal ko boppam yàlla wan ko dara su paasee loolu ay tur lay doon yoo xam ne yow da nga leen a jàng mhm. soo leen jàngee jëfe leen mhm. sàmmante ak ñoom ba mu indil la ay ku suufaat mhm. maanaam di la ubbil di la wuññil ay mbir bu boobaa ku la jox autorisation ci boppam mi ngi mel ni ki la jox euh, emailam jox la euh, kiiwam nu mu tuddati jox la emailam jox la kotam ki la email am mhm. jox la kotam boko ko téléchargé léegi da ngay am accès ci biir ci biir si boram. Mhm, parce que moo la email bi mhm. muy turam turu yaayam moo la jox bi muy ñaata at la dund so len boolee legi, am nga email bi am nga code bi so ko tappee rek dañ lay wuññil ay birom, mom molo la Moda nit mënoo ko sax seet ta fekk joxu la mi ngi melni sama compte ci whatsapp bi wala youtube wala nangam mëno ci dugg yow directement lu man mala lay jox digal noonu la nit ki demee moo waral ñu lay laaj sa tur laaj la sa tur yaay laaj la sa at bu boobaa joxe nga autorisation ñu dugg ci yàlla bu boobaa ci maando mhm. mu xamal Cheikh Tidiane yow li nga koy laaj mhm. parce que yaa ko jox autorisation pour mu dugg ci yow mhm. boobu seet bu boobaa dina dagan waaw bu boobaa nag ci nga mën a leeral yépp ci mbir mi ci kémtalaayal yow sa xam-xam nga mën ko koo leeral amma seet ci ndox ak seet ci pettaaw ak seet ci yeneen yi ñun ci xaalu li ñu jàng dafa xaram dégg nga mhm. am na nag ay ay seet yoo xam ne ba tey mhm. Mhm. boo jàngee eh, eh, zay jiri yi am na am na benn secret seet bu muy jàngale boo xamante ni moom imaamu Ghazali am na ay mbir yum ci defar dañ eh, saahibul hindi yi moo ko defar boobu moom boo ko tijjee mu ni boo bindee tur bind turu yaay calculer ko adat bi mu lay jox lim boobu kat boo ko dugalee fii dina la joxoñ benn ci texte yi mu bind ci biir hmm. numéro sàngam nga dem fa mu ni la loolu mooy tombeeg jëmm ji problème yi mu am hmm. am loolu seet la boo xamante ni ci hmm. wàllu liñ jàng dagan na waaye seet gi gën a wér ci seet yi kooku jaamukatu yàlla bu see sell moo koy am yàlla di ko ko may mu di ko mën a leeralee nit yàlla na ko yàlla defal macha allah jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane waaye tamit jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Baol Medias FM 88.5 ñu ngi ci jotaay bi tabarkàlla yaakaar naa ne li nga xam ne moom la jot a ñëpp xam nañu ko waaye tamit ñëpp dégg nañ ko Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al Maktoum muy leeral lu am solo muy yëngu ci wàllam xam-xam wàllam listixaar wàllam ñaan yaakaar naa ne lim développé léegi rek dégg ko ci wàllam seet ak xeet yi ci aju kon dégg ngeen ko sànq ci xeetu pettaaw waaye tamit ci xeetu listixaar ak yeneen yi nga xam ne di wax na ko ci xeetu ramle yooyu ndax ak ramle bu jub mooy suuf mooy seet suuf ak yooyu suuf su yaakaar naa mooy rëdd ak tomb yeeg yeccaaju ok tawaarkàlla kon yaakaar naa yooyu la den macha allah buñ waxee ñaan ne firi gént Cheikh Ahmad Tidiane ndax mel la day firi gént ak kooku bëgg ku bëgg mu firi la gént nan nan nga nan ngay def ba mu firi la gént da nga koy woo téléphone wax sa gént wala wala nan ngay def ba mu firi la gént Cheikh amadou Tidiane tabarakallahu comme ni nga ko waxee mhm. firi gént ci xam-xam yi nga xam ni xawlumu rabbaniya yi la bokk mhm. mooy euh, fa min inayati rabbani yàlla koy may ku ko neex mhm. loolu moom bokkul ci njàmbaaru njàng donte am na ay téere yu ñu tënk ci muy firi gént mm-hmm. ku mel ni ibli ibnu sirin taalif na ci ay téere mm-hmm. saxaaba yi la euh, tabaarakallah taabia taabiin yi mm-hmm. ñu ci bari taalif nañ ci ay téere yoo xam ni dañ lay wan ni soo géntee gis nangam nangam la soo géntee gis nangam nangam la mais euh, dafay am fu muy wuutee foo xam yow aji firi gént ji yow loolu sama yu bopp lay doon d'abord lu tax mooy euh, ki gént war mbaam te dëkk Tuubaa maanaa ak ki gént war mbaam te dëkk Dakar bokkuñu firi. ki dëkk war mbaam te dëkk Touba ak ki gént war mbaam dëkk Dakar bokkuñu firi dégg nga. Mhm. maanaam ki gént euh, par exemple di naaw. Mhm. nekk Touba gént ko wala mu nekk ca kaw ga. Mhm. gént di naaw ak ki gént ki nekk ci biir teeru bi gént. di naaw du ñu bokk firi parce que wuuteeg barab yi ñu nekk mooy wuutale place maanaam par exemple ni ñuy. firee seeni gént hmm. loolu moo waral téere bi dootul doy bu boobaal hmm. dégg nga bu boobaa yow xam-xam bi la yàlla di yenkawal hmm. ndax firi lu tax mu nekk lu danger lu tax man léeg-léeg mag nit ñi di di ci sori sax damay tiit <laughs> lu yàlla dafa wàccee yonent spécial def kéemaanam mu nekk firi gént mu yonent yàlla yusuf wàccee yonent spécial kéemaan bi yonenti boobu indi nekk firi gént kon loolu mënatul tuuti mboolem lu yàlla def comme mu'jiza loolu mënul tuuti. Mhm. dégg nga yonent yàlla euh, euh, Yuusuf. Mhm. moom li njëkk a feeñ ci ay xam-xamam may ko doole. Mhm. mooy xam-xamu firi gént. firi waaw. dégg nga xam ne am na ay soo demee ci surtout Yuusuf am na ay leeral gént yu fa leeral yu bari. waaye firi gént moomu nag su fekkee nit ki am na ay géntam. woo la d'abord da wax fi mu dëkk. wax la moom mooy kan nu mu tudd. Mhm. dégg nga. Mhm. wax la gént gi ban waxtu la ko gént. par exemple li nga gént xaaju guddi ak li nga gént bi nga añee ba pare di nelaw. Mhm. même bu nu nuroowee duñ bokk firi. waaw li nga gént bi nga lekkee ba suur. ak li nga gént bi nga xiifee duñ bokk firi. te gént yi ci boppam dañoo am ay darajaat yu wuute. Hmm. dafa am loo xam ne dañuy wax adrasu ahlaam hmm. mooy gént gi nga xamante ne lekk bi nga lekk ba suur moo waral nga gént ko hmm. <laughs> ak gént gi nga xam gi nga xiif moo waral nga gént ko ak gént gi nga xam ne xibaaru xaybu la bu yàlla la di la wan ci sa biir waaw maanaam maanaam dafa am euh, euh, ruya am dafa am lu ñuy wax maanaam am lu ñuy wax ruya su fekkee maanaam danga doon nelaw yàlla wan la dara bu fekkee ruya dafay lu existé wu lu taxaw loo xam ne da tëdd di nelaw yàlla pré wax la jugal waaj ko. mi ngi mm-hmm. jëm si ci sa kaw. Mm-hmm. bu dee lu lay yàqal bu dee ku lay liggéey bu fekkee loo war a am loolu ru'ya yàlla dégg nga lu teew lay doon. yaa bu in bunayya inni ara fil mm-hmm. manaam anni asbahuka fanzur maza tara parce que lii luñ la digal la te pourtant ci gént la ko gis inni ara fil manaam dégg nga dégg léegi loolu mooy différence su ar-ru'ya wal manaam hmm. muy gént bi aju ci adrasu alam nga xam na ngaa lekk ba suur wala da ngaa naan ba nga gént ko ak li aju ci gént gi kat yàlla lay xibaare dara ci sa biir hmm. loolu nag firikatu gént bu xam gént hmm. moo ko mën a tàqale boo nettalee gént gi moo tax gis nga ki nettali gént ba pare sax yow boo ko koy firil da nga kaa wax ni su fekkee sa gént gi dëgg la nangam la Mm-hmm. lu tax mooy nit man tey jii fii ma toog rek mënoon naan la sëriñ bi mm-hmm. sëñ Ibrahima nga ne waa man la man a biig damaa gént mm-hmm. ma yéeg ci fas après wàcc yéeg ci oto après wàcc def nanga xam nga léegi loolu géntu boo ko man maa ko wax rek waaye sa àtte yow mi xam gént su fekkee dëgg la nangam la dëgg euh, kii nu mu tuddati Abdul Mutalib dafa am gént gu mu gént bi mu géntee gént gi dem nettali ko war ku ñu wax Warxatu ibnu Nawfal nettali ko gént gi ni ko man de euh, gént naa nangam ak nangam gént naa ku am garab goo xam ne dafa dem ba asamaan cari bii dem ba penk bii dem ba sow mhm. gis naa loolu moo jaaxal ma góor gi nettali ni raa manaaman aziman xaiman fasian wa qiila di mhm. dégg bi mu koy tontu mhm. in sadaqat ruyaaka fabtasim in sadaqat ruyaaka fabtasim su dee dëgg la li nga wax nga gént kontaanal ndax lan la yuxrijanna ilaahi min ka man tabiat lahul axlaaiqu min jinnin wa na nasab mm-hmm. yàlla dina génnee ci sa ndigg loolu nga génne gis garab gi génnee ci ndax dafa ne ko gént naa gis garab bu jóge ci sama ndigg yëg ba ci asamaan car yi daj ba penku daj ba sow mu ne ko yàlla dina génnee ci yow koo xam ni mm-hmm. dina jariñ waa penku bi yëpp jariñ waa soow bi yëpp dinañ ko topp te kooku mooy sëtam bi ñuy wax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi loolu mooy gént mm-hmm. léegi nag bu nit ki amee géntam bëgg ma firil ko ko man Cheikh Tidiane yi mhm. taalibe xutbul maktub mhm. bu boobaa dafa am ñaari yoon mhm. danga may woo téléphone ni ma damaa gént nangam su fekkee ma jàpp su fekkee ma féex dama lay tontu rek directement gént googu nangam lay firi ak nangam su fekkee dafa fekk ci période yi may xat soo wootee dañ lay waxu bu dee gént la wax ko ci whatsapp bi nga dem ci whatsapp bi ni man la diw place sangam laa dëkk ci ci réew mi wala bitim réew damaa gént nangam ak nangam ak nangam ran la yi doon nag ñuy topp kenn par kenn suñu féexee di leen firil li nu gént su ko defee gént gi sarax bi muy tombeel ñu ni la sarax sàngam la génnee ko parce que Ibrahim mhm. néew na lu jullit di dara di dal ci kawam te yàlla mayu ko woon mu gént ko avant dëgg la kon ku xam say gént rek noppalu ci sa dund tabaarakallah <laughs> macha allah loolu yaakaar naa ne firikatu gént yi war nañ ci bàyyi xel ndax euh, tolluwaay man loolu dama koy dégg lu bëree bëri ndax xam nga toog rek dana daal di woo daal di diw damaa gént nangam nga firi nangam nangam xam nga yooyu dafa bëri léegi <laughs> léegi loolu nag euh, kon am njàng da ciy am nekkate man xam moon sax yi fi am na njàng la ilaha illallah macha allah loolu am na tax a jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ñuy toog a dab ci Baol Medias FM 88 point 5 tey nag ñi nga ànd ak sëriñ Cheikh Ahmad euh, sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al Maktoum la ci xam-xam bu set bu sell bi bu wóor bi leer bi tabarkàlla te moom lañu àndal ci Baol Medias FM yow mi nga xam ne tamit tabarkàlla yaa ngi toog tey déglu te bëgg am gént goo xam ne xañ nga ba nga ñu firil la ko ba nga ñu leeral la ko tey Cheikh bi toog ngir leeral li incha allah ba nga ànd moom 88 628 19 05 mën nga ànd ak moom waaye tamit Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi dëkk fii ci Mbàkke ñaari pa ñaari ñaari Baye Fall ci daara yi Maam Jaara waaye tamit boo demee fee ci Touba ma nga dëkkee Touba Xayra kër sëñ xel Xelkom foofu la dëkkee ci Touba Xayra euh, yow mi nga xam ne tamit yaa ngi dégg jotaay bi yaakaar naa ne xeetu yi mu jot a wax ci seet gi ak euh, firi gént bi euh, leer na waaye Cheikh Mat léegi li li bëri ci doomu aadama mooy rab rab solo du doomu aadama yi moo xam ci kii rab jàpp la ci yaram muy daanu di say ak moo xam kii rab jàpp mu am maam ñu koy wax faru rab ak lu lu ñu ne sonal na nit ñi daal waaw rab moom Cheikh Ahmad Tidiane da ciy yëngu di ko faj ak kay ki am wala boog ki ka bëgg a faju bu dikkee nan lay jëflante ak Cheikh Ahmad Tidiane ba mën ko fajal li ni mel ndax dafa mel ne ñu ngi rab na jinne waaye dafa mel lépp benn bi la rek arab bi mooy yaakaar naa mooy wax jinne wala bi di wax rab ak caaju kon yaakaar naa daal daal lu mu demee mun daal dama xamut mun daal rab daal daa mel ne sonal na doomu aadama daal léegi tabaarakallah mhm. tabaarakallah Seyd Ibrahim jërëjëf mhm. laaj nga thème d'actualité mhm. eh, mbir la moo xam ni <laughs> li may wax chaque jour Eh, ci biir Touba gi boo duggoon ñi xam yàlla. Mhm. xam lasaraar fa ñu toog seeni rangoo ñu ngi tuuru. ndax dëkk bi ni nit ñi génnee te xamuñu lu sax lu aju sax ci ci xeetu xam-xamu rab ba pare di ko woote. di ko woote dafa tiital ñi ko di ko woote di ko jéem a faj. di ko woote di ko faj. te mu leer leen ñoom ñi ci ruq yi ni ñii di ko wax xamuñu ko parce que euh, d'abord jamono yii rek dégg naa ci benn nit mu wax ni yàlla dafa bind rab bind jinne mhm. or que rab ak jinne benn xeet la gis nga imaam bo diggante boobu Sénégal bari na ñu fi woote woo jinne te kaay ma wax la tey bis ni ki tey nga xam leen mhm. jinne ñaar kese ñoo koy yilif moom jinne jinne mhm. ñaar mbi ñaar ñii képp ñoo koy yilif ci doomu aadama ku dul ñoom doo leen yilif mhm. mooy ab yonent mbaa nitu yàlla ku yoon yow ñaar ñii loo bari bari xam-xam doo yilif jinne ñi gën a am ful la ci kaw suuf mooy jinne dégg léegi nag soo dul yonent doo nitu yàlla mhm. soo jaxasoowee ak jinne ngeen di liggéey mhm. bu boobaa yow yilifoo jinne ji moo la yilif ndax dalay defloo yudul sa baax yoo xam ne yow bëggoo leen doo leen def mhm. kon kii la koy defloo moo la yilif rendil ma ginaar gu xonq nga rendi ko force rendil ma xar mu ñuul nga rendi ko force dégg nga euh, euh, damaa soxla damaa soxla ndaw ndaw ndawal jigéen jigéen jànq bi am séegul laa bëgg ñu dévierger ko deret jooju la jinne ji di soxla bu boobaa yow yilifatoo ko moom moo la yilif te li ëpp ci sénégalais yi mhm. di woote woo faj rab mhm. noonu lay tëddee parce que euh, nit ku ne mhm. soo amee yoo soo jaaree yoonu sellal di gëstu xam-xamul lasaraar wala dara dafa am ay pakk yu lay traversé yoo xam iblis moo koy programme dafa bokk ci pakk yooyu parce que sunu maam abdul xaadir jeylaani wax na ni dafa tëju xalwa ba mu yàgg iblis feeñu ko ni ko Jeylaani man la sa borom mboolem lu ma araamaloon ci yow bis ni tey dagan na daganal naa ko kontaan naa ci yow kontaan gu mat sëkk mhm. waxa waxa waxa wax wax yu bare jëy Jeylaani ni ko toppal fële yow ku yàlla rëbb ki <laughs> mu ni ko iblis noo mu ni ko Jeylaani noo xamee ni man la iblis mu ni ko benn mooy yàlla ni mu fonkee boppam du weddi boppam ndax benn jaamam mhm. mooy lim loon du ko araamal ndax kenn lim araamaloon du ko daganal ndax kenn mhm. ndax lu nekk ci man moom moo ko def ci man kon duma gërëm ba tax mu araamal lu mu daganaloon muy benn mhm. mu ne ko bu ñaareel bi mooy sa leer gi dafa yaraax dama nekk ci damay gis sa leer gi di gis sam bopp te ku dugg ci leeru yàlla gi dootoo gis sa bopp mhm. mu ne ko bi ko ñetteel nag mooy dama seetlu ni bi ngay wax ak man sama nopp yi mooy dégg sa kàddu gi te yàlla ku muy waxal sa jëmm jépp a koy dégg mm-hmm. dégg mm-hmm. euh, iblis tontu ko ni ko jërëjëf jëy li waaye naa la wax benn affaire fii nga toll ci jaamu yàlla mm-hmm. kenn xamul ñaata junni nitu yàlla laa dévier fii ñu nekk samay wëliyu allahu lu tax mooy léeg-léeg ngay ut yàlla di ko jaamu di ko jaamu ba mu yaay iblis feeñu la mbaa mu yebal ab taalibeem bu la feeñu bu la feeñoo xam nga lu mu lay wax mm. man la diw jinne la dama bëgg ñu collaborer léegi man dinaa fexe ba nga siiw fexe ba nit ñi ma leen di daaneel ñuy fa ñuy sayag di cëppi cëppi kuñ la ci indil defal nàngam rek man maa ko jàpp dinaa ko bàyyi su ko defee nit ñi di la gën a tagg di la gën a naw waaye sart bi mooy man danga may defal nangam danga may tuural deret ginaar danga may bu boo amee gënee am doole danga may rendil bëy bu mel nangam boo gënee am tool doole danga may defal nag boo gënee am doole danga may defal gileem. Mm-hmm. soo demee ba tàmbali ko nag. mu di la may doole di la siiwal di la yokku tur ñu naan diwa ko faj diwa ko faj diwa ko faj nga dem ba egg ci dimension boo xam day xëy rek ni la dereetu xale laa soxla gis nga xale yu bari yuy disparaître ay sëriñ a leen di sacrifier xëy rek ni la ah dereetu xale laa soxla nga ni non loolu dafa aram mun la yow ci lu aram nga dëkk ba egg si fii benn beneen bu ñaareel bi mooy soo ko bàyyee tey laa lay bàyyi dootuñu jëflante nit ñi weddi la tey léegi da obliser obligé ni ah waa ab xale de xanaa bu ma wuutoon ñaari agresseur fay leen temps ñu lijjantil ma ko ñu sacrifier doomu jàmbur mhm. ba mu yàgg mu ni la yow sëriñ bi li ma soxlawaat ci yow mooy nga dévierger jigéen deret jooju laa soxla ndax nangam ak nangam ak nangam léegi loolu mooy dugal yenn sëriñ yiy jëfandikoo loolu mhm. ci ay tooxi doona léegi nag soo ñëwee ci cadre jinne ci boppam mhm. jinne xeet la wu yàlla bind comme ni mu bindee xeetu doomu aadama ci biir xeetu jinne dafa am li xew ci biir xeetu nit da am séeréer am pël am tukulóor joolaa bay nunke noonu la amee ci biir xeetu jinné yi mhm. ci wàllu jikko tamit dafa am ci nit ñi ay nit yu sell yu baax ak ay kàccoor ay agresseur gis nga ci biir jinne yi mhm. ñi ci nekk ñu sell ñu baax ñooñu mooy ñu baax ñi di jinne yu sell yi mhm. ci ña fa nekk ay agresseur ñoo tudd rab ñi nekk agresseurs ci biir jinne yi mhm. ñooñu ñoo tudd rab rab mhm. dégg nga mhm. moom la alxuraan di jun junju naan shayatinil jinni wal insi agresseurs yi nga xam ay jinne lañ ak agresseurs yi nga xam ay nit lañ loolu mooy shayatinil jinni wal insi ni mu amee ci nit ñi noonu la amee ci léegi léegi nag ci wàllu olof shayatin yooyu lañ tuddee rab dégg jinnu kooku xeet wi la biir jinne yi dafa am ay afaarit mooy buuru jinne yi ñiy donn seen nguur yi ñooñ ñooy afaarid yi mm-hmm. dégg nga mm-hmm. boo déggee ci yonti yàlla Suleymaan ba mu toogee wax pour ñu indil ko séesu balxiis avant balxiis di egsi mm-hmm. xaala afritum min al jinn xaala afritum min al jinn parce que buuru jinne yi daan ànd ak Suleymaan kenn ci ñoom moo ne ko man mën naa laa indil séese bi avant xam laan taxuma même avant muy taxaw ci sa kanam léegi pour nga xam ne lasaraar am na Suleymaan dañu ko soxlawuma boobu li ma soxla koo xam ne ilmu min al kitaab dégg nga ku ñuy wax aasifu daal di àdduni mën naa la koo andil même aasifu léeg-léeg ma dégg sëriñ si ñu jël aasifu def ko jinne te aasifu bi lasaraar jóge ci moom du jinne ci jamono Souleymane jinne yi ak nit ñi dañu daan gisee di toog di waxtaan am ci ku amoon doomam tuddee ko benn xaritu jinneem bu ñuy wax aasifu léegi nag sekkiri yi siiw ci xam-xamu lasaraar ci ci xale boobu tudd aasifu la waaye nekkul ci turandoom boobu nga xamante ni jinne la ndax moom moo daan bindal Souleymane wax yu dégg mhm. léegi nag jinne yooyu ñi ci nekk ay shayatin ñooñu la ñuy wax rab yi ñooñu ñooy wër di saddaate di daanuloo nit di ko sonal di ko jaxase di ko gëlëmloo di mettiloo ay bopp ñooñu liggéey yi nit ñi di liggéeyante ñooñu ñoo koy dox mhm. dégg nga mhm. léegi nag ñooñu bokkuñu ak jinne yu baax yi jinne yu baax yooyu noonu ñooñu nag dem nañ tànn ay sëriñ dem toppi leen nekk seen i taalibe booy jàng ci xasida Serigne Touba yi wa dañ lay nettali juróom-ñaari jinne yi nga mhm. xam ne dañoo jébbalu si woon ci Serigne Touba. Mhm. te ñooñu ay buur lañ ku nekk daa am ñoo yilif mhm. nga ñooñu ñëpp ànd sell topp sa ginnaaw ngeen dem jébbalu ji ci kilifa gi. ndax jinne yu baax yi dañuy topp kilifa gu baax. dégg nga waaye jinne yu bon yi rek ñoo tudd rab. léegi nag rab suy fàdd nit. dafay am ay signes. d'abord nit ku ne am nga jinne tamit balaa ñuy sori. nit ku ne avant dara yàlla su bindee doomu aadama bi mu ko bindee tag yow nit mu bind la dafay bind euh, yonent bi sallallahu alayhi wa moo nettal ni amul kenn ci yéen lu dul yàlla boole na ko benn jinne bu ñu wax xarit muy àndandoo mu bind jinne boobu mu àndandoo ak yow juddu noonu lay bindee malaaka mu ànd ak yow juddu noonu lay bindee rawxaan bu ànd ak yow juddu noonu lay bindee xuddaam bu ànd ak yow juddu léeg nga dégg ku naan waaw diw àndandoom moo baax na yoon bi li wax ci hadis mooy <laughs> ku nekk yàlla bind na la boole la ak jinne joo xamante ni say mbir yu ci bare dafa moom day am accès ci loolu <laughs> mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba ni ko ba ci yow mu ba ci man lenn daal laa am comme sens <laughs> man sang bi mooy yàlla daf maa may kim ma booleel mu tuub ànd ak man dégg nga loolu mooy sensam kon léegi li nga ciy déggee mooy ñun ñi ci des ñim ñu booleel tuubuñu wallaahi léegi nag kooku mu la booleel mooy manipuler souvent say mbir malaayika bi mu la booleel mhm. mënul jëflante ak yow te selloo mhm. dégg nga bi mu la booleel rawxaan léeg-léeg nga dégg ko naa eh, sa rawxaan moo lay yàqal ak sa te du yàq rawxaan mënul def lu bon mhm. est que dégg nga ma ñaar ñii di daani laay tamit an mënta def lu bon dégg jinne eh, rab mënta def lu baax ñoom ñaar kii mënta def lu bon kii mënta def lu baax rab lu bon rek lay def jin euh, rawxaan lu baax rek lay def xuddaam nag mooy ki nga xam ne soo yàggee ci jaamu yàlla ak di tarbiya mhm. day dem bay ñëw di dox ci say service xuddaam moomu mën ngaa dem ba am doole di ko yónni mu dina doxali dara di ñëw su nitu yàlla di xeex sax mbaa nga dal ci kaw nitu yàlla li lay fàdd xuddaamam la mhm. waaye rawxaanam sax moom du xeex rawxaan du xeex lu baax rek lay def dégg wax mhm. léegi dafa am bu bu loolu paasee nga xamante ni dañuy teqale diggante rawxaan eh, xarin muy àndandoo bi nga xam jinne la mm-hmm. ak xuddaam bi nga xam dafa nekk ci yow ñooñu même bu mag ñi dañ la daan jox kur kurus mm-hmm. boo déggee tarbiya bi ngay dégg tarbiya bi ngay dégg mm-hmm. mooy dañ lay yar ba nga ni nemm ñu jox la loo xam ne soo ko doxalee bis dina ñëw sa rawxaan génn ci sa jëmm taxaw ci sa kanam ni la man la diw diw laa tudd soo ma soxlaatee woo ma ci nàngam looloy waral nga naan turu rawxaan sàngam looloo ko indi parce que raw xaan yàlla bindul ay rawxaan ñuy taxawaal rawxaan bu ne daa am kum àndal dégg mhm. léegi nag su yooyu paasee nag ki rab jàpp nag nga xam ne rab da ko fàdd mhm. dafa am koo xam ne ay maamam ñoo créé li tax rab jàpp ko mooy ay maamam ñoo doon jëfalante ak ay rab comme nee ma la nettalee woon mhm. mu dem ba ay maamam toll ci faatu bàyyi fi ay xàmb yoo xam dañ caa war a tuur deret tabaarakallah dem na xam naa day jéglu waaye ndeysaan mën naa ñëw rek ndax itam yaakaar naa ne li Cheikh Ahmad Tidiane di leeral dafa am solo euh, mën naa ñu ànd ak ñun rek ñoom ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala nga def 88 628 81 08 88 628 81 08 ñu ànd ak Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al Maktoum barkàlla muy yëngu ci wàllam lasaar waaye wàllam ñaan sax laay wax waaye tamit ci ci ci fànn yëpp macha allah di ko yëngoo ci di ko jëfandikoo ci alquran ak turu yàlla ndax yaakaar naa ne loolu moom moy moy mooy mooy lasraar ci ci ci ci alquran sukkandiku ci alquran waaye sukkandiku itam ci ci turu yàlla yi ndax itam loolu rek mooy mooy li nga xam ne la si Amad Tidiane di di jëfandikoo nekk ci paaleen euh, daaray maam jaara waaye tamit bu fekkee da ngaa dem ci euh, Touba mi ngi xayra kër sëñ Masamba xelkom foofu la nekk ci Touba ci xayra waaye tamit fi day Mbàkke tamit mi ngi fi fii nga xam ne rek mooy kër euh, daaray maam jaara numéro téléphone am 77 la 495 494 494 waaw kay 494 59 04 494 59 04 waaye nag koo xam ne dafa am gént goo xam ne da koo jaaxal léegi-léegi bu jokkoo ak sëñ Ahmad Tidiane incha allah dina ko ci leeral waaye tamit koo xam ne dafa am lu mu bëgg laaj ci aw yaramam wala ay xeeti li ko xam ne koy daane wala lu ko dal incha allah bu ci jokkoo ak sëñ Ahmad Tidiane rek incha allah dina ko mën a leeral li nga xam ne mooy li ko dal ci aw yaramam mën ko ci jox ay saafara incha allah rabbi nga mën a jokkoo ak moom ci 88 628 19 05 88 628 19 05 mu mën laa leeral léegi xam naa si amati ñi ngi woon ci rab mu mu nit ñi ndax loolu nee na la spécial ndax dafa sonal doomu aadama yi faru rab dafa mel ne moom tamit ci ci yëfi la bokk moom lan lay def ci nit ki ak lan lan lay yàqal doomu aadama yi bu fekkee dafa nekk ci moom faru rab moom faru rab tabaarakallaahu ba tey euh, faru rab mhm. ak coro rab mhm. bu dee ku góor mooy am coro rab mhm. Jigen, moy am faru euh dafa bokk ci yi dal jinne yi moy mhm. dañoo bëgg di jaxassok nit jinne dafa bëgg lool dafa bëgg mhm. lool di jaxassok nit lool waaw mom jinne mhm. legi xéetu jinne yi nga xamni tabarakallah waxna la sank ni la ñom la tuddé rap moy agresseuru jinne yi lélé ci seen wër di di agresser la dajé jigen, a en général sax jigen bu rafet lañuy jàpp jigéen bu rafet boobu dafay fekk ay weenam di feeñ ab boppam di feeñ ci mhm. biti mhm. noppam di feeñ ci biti parce que jinne suy dugg nit ci yii ma wax la koy jaare mhm. soit da koy jaare ci suufu dëggoom tànkam ci suufu dëggu ya waaw tabaarakallaahu ci suufu dëggu yi lay mën a jaar wala mu jaar ko ci ay noppam dégg nga wala mu jaar ko ci bakkanam wala mu jaar ko ci ay weenam dégg nga yooyu barab képp mooy barab yi jinneex am accès pour jaar ko ci nit mm-hmm. dégg mm-hmm. yooyu nag yi ci gën a fés mm-hmm. sunu borom dala kaa muurloo dégg yooyu yi ca gën a fés sunu borom dalaa sant nga muur leen yow en tant que jigéen dégg nga su fekkee bopp ak li ci aju sunu borom dafa santaane muuru kon muuru bi nekkul woon yàlla daf ko santaane noonu rek rek par hasard mais daf ko doon santaane pour nga mucc ci yooyu dégg nga ni nga xamee ni dañ laa wax wutil carte d'identité pour bu ramasse amee <laughs> wutil carte d'identité pour bu ramasse amee mhm. ndax boo amul carte d'identité bu ramasse bi dajeeg yow kenn mënul ci yow dara dalay jàpp yóbbu kon jinne su fekkee jigéen bi muuruwul muurul ay awraam su dajeeg ay ay ay ay rab mhm. fokk dañuy am accès dugg ci moom suñ duggee ci moom nag li ñu tuddee faru rab mooy bu boobaa saa yu ñu bëggee tëdd ak ndaw si benn danañ ko daaneel yëngal ko mu xataraayu ñu def ay seeni mbir ba nit ñi def ci ay pexe bam tëral ko mu ne nemb ñu daal di daw sëy ak moom moom jinne ji moom jinne ji mbaam ñu bàyyi ba mu tëdd di nelaw ñu dikkee ko comme gént jaxasoo ak moom yooyu nag dina jural jigéen yu bare mhm. bokk na ci yim koy jural bari na ku mënul am doom mhm. fekk jinne ji sëy ak yow ndox mi muy bàyyi ci yow mhm. su ndoxum góor ñëwee day rey ndox moom looloo tax du mën a am doom moo tax bu boobaa fokk dañ lay faj ba nga tàqalikoog jinne jooju pour nga mën a am doom mhm. dégg am na koo xam ni maanaam ndox bi muy bàyyi ci yow mhm. mooy jeexital ci sa yaram ba sa yaram doy fënax dootul dootoo wér ndax jinne dafa gën a gudd fan doomu aadama mhm. boo seetloo xale bu ndaw ku am 10 ans ku am 15 ans diggante boobu jànq su séyee ak paa moom day gaaw a màggat maanaam ci zahir waxuma la jinne de mhm. maanaam ñun nit ñi nii mhm. man su ma takkee mère su ma takkee mère bu ñu sëyee damay gaaw a màggat léegi xale bu jigéen tamit bu sëyee ak paa day gaaw a màggat mhm. dégg wax bi day dimbali paa bi ci doole dafay do daf koy dolli doole moom paa bi man su ma sëyee ak mère mère bi maanaam man damay gaaw a màgget moom daf koy di daf koy di dimbali mu gën a mën a résister scientifiquement léegi nag jinne yi comme dañ ñoo mag da ngay gis jinne bu am juróomi junni at wala juróomi téeméeri at mhm. day bëgg a xëy xëy xëy rek jàpp jànq bu ndaw di ko séyee ndax loolu da koy dolli doole moom waaye day yàq dund xale bi mhm. mooy xale boobu day gaaw a màggat ay yaxam day gaaw a fënax day gaaw a sonn mhm. bopp bi day gaaw a metti parce que ki koy tiim amul doole di ko dékku loolu moo waral rab di indi nit bopp buy metti bu bu fekkee nag da ngaa nekk koo xamante ni da ngaa looy résister ak moom. Mhm. ci ay da ngay jàngal xuraan wala da ngay am yooyu def loolu day jur ci sa diggante ak rab bi que muy fàdd say tànk lu bari loolu day waral sa ngay gis kuy ta ay tànkam di met neewi ndax rab kuy tànkam di metti ndax rab léeg-léeg ñu jàpp ndigg su fekkee góor surtout. Mhm. rab ndigg li lay jàpp. góor bu dee góor. Mhm. parce que souvent. su la téyee moom rab bi nga xam moom mooy séeg yow ndax mhm. rab bu jigéen lay doon mhm. mooy jàpp góor su bëree lum lay séyee sa ndoxu bi téye woon bi doon téye sa organes yi te mooy ndoxu mën yu boobu day mhm. bare lu muy tuuru ndax kiy gént di séeg rab li muy tuur ci ndox ak kiy gént di séeg jigéen maanaam nit du ñu tolloole la ñuy tuur looloo tax lee di gaañ kooku bu boobaa ku am faru rab ku am coro rab tey góor lu ëpp ndigg li lay jàpp mbaa tànk yi mbaa loos buy metti bu dee jigéen la bopp bi lay jàpp di ko metti mbaa tànk yi di neewi mbaa xel mi di jaxasoo muy tiit waaw fit wi dootul toog tabaarakallaahu yooyu dafay nekk ay signe yoo xam ne su amee da ngay daw seeti ki nga yaakaar ci sa diggante ak yàlla mhm. mu xoolal la est rab la su ko xoolee gis ni rab la mu des nag nan la la koy fajale dégg mhm. su fekkee nag rab woo xam ni say a doon faj rab wala say a amoon i xàmb mhm. ba loolu foofa la jóge moom amoon na amoon na contrat ak say maam say maam respecté wuñ ko mhm. kooku fokk suñ koy tàqale ak yow dañuy rendi gàtt kooku moom c'est forcé parce que bu fekkee ne dafa daa nekk saaru ndono daal waaw bu fekkee rabu ndono la mhm. fokk ki koy fokk ku koy seet da koy seet ba xam lan la pacte ban la sa maam signé woon ak moom mm. mu doxale pacte boobu ci seen diggante fexe ba dootul am accès ci yow dégg nga mhm. Mhm. waaye bu fekkee ku rab kar fii jàpp ko fàdd ko di ko sonal moom far rab mu koy tëddee kooku moom faj gi mën naa am ba mu wér te du soxla ñu koy reddil daal te loolu lépp Cheikh Ahmad Tidiane da koy da koy saafara incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam mhm. lépp loo xamante ni wax naa ko ci cadre xam-xam yi dafa fekk ci kàttanu yàlla ma jàng ko gëstu tamit ci naka lañ koy fajee. moo xam ci wàll bu mu mën a doon incha allah. Mhm. jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane waaye tamit jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel euh, jotaay bi ci ay leeral yoo xamante ne kilifa gi mi ngi koy leeral ci fànni xam-xam ci fànn bu ne nag ndax dégg nañ ko ci njëlbeenu wax gi ci seet ak ay xeetam waaye firi gént tamit ak ni mu koy defee waaye tamit faj rab waaye tamit faj tamit ki nga xam ne faru rab da koo téye yaakaar naa wax na ci signes yi nga xam ne moom moo koy gaar su ko xamee su ko conseil am ci góor gi ak jigéen gi lim koy teree am ak lim koy gàllankooral ci lu bëree bëree bëree bëri yaakaar naa ne eh, ñi nga xam ne ñi ngi dégg moom ñi ngi déglu moom ñi ngi dégg xam kon yow mi nga xam ne ak ñi soogee dab rek ñu ngi ci Baol Médias FM 88 point 5 tey nag jotaay bi nga xam ne moom la ñu ànd ak eh, tey nag yaakaar naa mooy suñu première émission te incha allah ni ñu ko waxee woon noonu la day continuer ndax cheikh bi daa fa yéene ñëw ci rajo bi ànd ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fas yéene leen dimbale ci seeni i jafe-jafe waaye fas yéene leen jàppale tamit ci seen i jafe-jafe ak seen i gàllankoor yi nga xam ne nit ñaa ngi koy jànkonteel ci seeni i bërëbu liggéeyukaay waaye di ko jànkonteel ci seen i yaram waaye di ko jànkonteel tamit ci seeni i dimbalante ak dikkalante ak doomu aadama yi ndax itam loolu tamit day am solo ndax nit ñi léeg-léeg dinañ jànkonteel yoo xam ne day métti lool ci ñoom ci fànn gu ne nag moo xam bërëbu liggéeyukaay moo xam euh, kii waaye suñu Cheikh Ahmad Tidiane yaakaar naa ne kaaraange kaaraange bëri na doomu aadama yu koy sàkku waaye tamit bëri bëri na ñu koy defale te itam xañ nañ ni niñ koy defeele ak ni ko nit ñi sàkkoo mu am ak waroo kaaraange si Amadou Tidiane bu ñu doon wax ak tey nan la koy yëng nan la koy defaree defaree doomu aadama ak yan xeetu kaaraange lay liggéey ci ci ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy ñoo koy wut lan la ñuy ciy leeral. tabaarakallaahu wax nga wax bu solo. Mhm. moom kaaraange dafa am seex mooy cat. Mhm. Euh, kaaraange bari na ay fànn yu ci am. Mhm. d'abord ci ñi nga xam ni ñooy déglu di bàyyi xel loolu sax. ndax léeg-léeg ma dégg ko ni waaw nit ki bu ko yàlla bindee bind na lim war a am lépp bind na lim war a nàngam lépp. Mhm. su loolu doyoon baat baatu yàlla bind na lépp su doyoon yàlla du wax ñaan leen ma. Mhm. ndax lim préparé ba pare jarul ñaan dina ko def. waaw wallaahi. Mhm. dégg yàlla dafay wax ci alxuraan wa xada ajalan wa ajalan musamma ñaari ajal la nit di am. mooy su fekkee defuloo dara lu war a tax. ma yokk sa fan. at sàngam ngay ngay yam faatu mhm. soo defee lu war a tax ma yokk sa fan dina mën a yokk waajalu musamma boobu amul dat dégg nga léegi naka noonu su nit ki nga xamante ni mooy dund mhm. ñu mën koo liggéey jàpp ko mën koo gaañ mhm. mën koo yàqal ci ci liggéeyukaayam kooku moom nit naturel la léegi nag bu wutee kaaraange kaaraange gi dafay am leneen lu mu ko defal parce que defe naa ñun suñu exemple du sori yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa la ñu yàlla booleel yonte bi jabar nañ ko liggéey ko jàpp ko ba muy am bopp buy metti bu jaaxal ñëpp waaye yàlla sunu borom moo bind yonent bi te moom innama amruhu isa arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun yàlla bu waxee nekkal rek mu nekk léegi lan moo tax faj yonent bi jot yàlla jox ko ay tegtal elie mu faj ko directement ci kun fayakun mais mu jox ko ay tegtal dafay tekki ni mbir dina ñëw mhm. yow yaay jóg def ay tegtal pour nga wér mhm. mooy lan yonent yàlla Muhammad bi ko rab biñ ñu ko liggéeyee ba loolu sonal ko jibril dikkal ko daf ko wax ni ko dañ laa liggéey fa ñu suul liggéey ba ci teen lañ ko dugal mu ànd ak ali ibnu abi taalib ak beneen sahaabi yi ñu ànd dem dindi ji ko yàlla jox ko fallaxi ak naasi ni ko liggéey ba juróom-ñeenti pas-pas la <laughs> jàngal juróom-ñeenti aaya yi dina tekki pas-pas yooyu te boo ko déggee xul audu bi rabbil falaq min charri maa xalaq wa min charri gaasiqin isa waxam wa min charri nafaasaati fi l oqad ak nafaasaati fi l oqad mooy ñi nga xam ne jamono ba ñuy fas di ca tudd sa tudd di ko ëf ñu ngi la cay jàpp muslu ci yàlla parce que xeetu jàpp yu ne dafa am mm-hmm. léegi nag bu boobaa yow en tant que njaboot sama benn sëriñ bi may gëstu xam-xam ndax man ci ñi sonn ngir daara ngir xam-xam laa bokk mm-hmm. ginnaaw bi ma jàngee xam-xam ba pare fu ne fu may yaakaar xam-xam Tuubaa gi ñëw naa fi ci ay année 2004 2005. doon fi gëstu xam-xam. wër Sénégal fépp foo xam yaakaar naa fi xam-xam dem naa fa. 14 raisons yi Sénégal am bu ne ndékki naa fa añ fa reer fa ngir yàlla ak wut xam-xam. frontière bu Sénégal am jéggi naa frontière boobu dem ci réew bi mu frontièreel wër ca biir réew ma dem ca capital ya ngir yàlla ak xam-xam. dafa am nag ci loolu lu ko waral ma wax ko mooy dafa am benn mag bu ma ci mës a wax wax bu am solo. dama Cheikh ma ni ko labbay ko mu ne ma ndaw du raw day ndaw du raw day të ndaw du raw day ma ne ko luy loolu mu ni daw ba raw ci ngóor la bokk mu ni déedéet daw ba raw ci tardé la bokk ndaw warul daw ndaw li mu war a def mooy def ci yaramam kaaraange ba ku dal ci kawam arrière mu ni loolu mooy ndaw du raw day të <laughs> te mooy kenn mënul ci yow dara loolu nag dafay soxla kaaraange <laughs> moo waral daan naa ciy faral di defar ay xeeti kaaraange yu bari yu bokkul kaaraange ah, kaaraange xam <laughs> naa kaaraange yoo xam maa koy defar ci jaaro bu ànd ak ndomba ak ay cangaay yu muy àndal léeg-léeg euh, kaaraange am kaaraange yoo xam cat lay àndal mm-hmm. muslaay ci wàllu tëju mm-hmm. prison ak mm-hmm. euh, tukki ñu dugal la ci yenn situation yu yu baaxul yi mu yàq sa avenir yooyu dama koy faral di defar ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla lenn daal laa dul laa dul jublu mooy lépp loo xam ne wóor na ma ni dafa xaram du ma ko def waaw lépp loo xam ni wóor na ma ne lii dafa xaraam du ko def rayal ma sama wujj bi jarul nga may woo fexeel sama wujj bi tas man ma dem ma nekk fa man kese jarul nga may woo mboolem loo xam ne leer na la ne lii dafa araab jarul maa woo loolu la ma yàlla nattoo waaye am maa kaaraange moom xeet yi ma ciy defar dañu bari am naa kaaraange yoo xam càggaay rek la am na yoo xam cuuraay la am na yoo xam da koy suuroo ak ay xeetu euh, tegtal yoo xamante ni su ma la ko joxee defal lii defal lii defal lii fu la waaye liggéeyatee nga gis ko tabaarakallahu mm-hmm. rabbul alamin kon kon daal buñu déggee buñu bi yaakaar naa ne ci xeetu kaaraange yi am na yu muy liggéey ci jaaro am na tamit yoo xam koy liggéey ci ay cangaay am na da liggéey ci ay ndomba kon yow ndaw li nga xam ne ba ngàtt dawal gaaw nga daal di seeti Cheikh Ahmad Tidiane ci Cheikh Ahmad Tidiane nag mu daal lay defal kaaraange goog boo ko takkee wala boo ko sangoo lépp lu waaye di liggéey mu jëm ci yow suñu borom dina ko gàllankoor kon dawal gaaw nga wuti ndax dama naan kaaraange moom lu mat a wut la ci tournoi suñu jamono ji kon yow ne yaa ngi topp mën ngaa ànd ak ñun ci 88 628 19 05 baa nga def 88 628 81 08 tey nag ñi nga ànd ak Cheikh nekk fii ci Mbàkke bu fekkee da ngaa ñëw Mbàkke mën nga koo fekk ñaari Baay Faal ci daara Maam Jaara bu fekkee da ngaa dem Touba mën nga ko fekk xayra ci kër sëñ Masamba Diop macha allah yaakaar naa ne sëñ Masamba xel kom Eh, foog nga koy fekk ci xayra incha allah rabbi lépp loo xamante ni xañ na am nga ko lu la jaaxal ci sa yaram rek boo fa demee dina la mën a saafaral say jàngoro saafaral la tamit mboolem lu nekk ci sa ci sa ci saw yaram la caaju wala numéro téléphone am 494 la 59 04 77. waaye yaakaar naa am Ahmad Tidiane xam naa mën na waxtu sax waxtu ngi dem te xam naa ne léegi rek incha allah ñu mën a yëkkati waaye dafa mel ni eh, seddu nañ ci léegi ci ci wàllam xeetu ñaan yi. mu mu nekk ñaan yu yu fànn yu fasantikoo ñuy fas ñaan ci sunguf ak reen ak jat ak ay caaju Cheikh Ahmad Tidiane bu ñu doon leeral ci fànn yi ma xam ne moom lay ñaanee ci alxuraan ak day jël day jëfandikoo sunguf ak reen wala day yem ci alxuraan kese rek ak turu yi lan la si Ahmad Tidiane diggan gën di liggéeyee ci ci xeeti ñaan yi. tabaarakallaahu man alxuraan laay jëfandikoo ci wàllu ñaan. dinaay am ay sunguf nag yu may booleeg leeleeg ay aaya. Mm-hmm. parce que sunguf. Mm-hmm. maanaam day faj waaye dafa am ay yoon mhm. sunguf yii faj li tax muy faj pour mhm. ñu bari xam ko mhm. sunguf boo gis muy faj yii moo war a tax benn su fekkee sunguf yi faj rab ak xeetu jinne ku mu euh, ku jaxasoog euh, xeetu euh, rab yu mën a doon sunguf yi koy faj mooy sunguf boo xam ne garab ga gaynde da ca mës a riisu wala mu saw ca yooyu ñooy faj maanaam loolu xanaa <laughs> xam-xam daa leen xam nga gaynde yow ni ni la jinne di gisee te doo ko gis gaynde day gis jinne te jinne di ko gis mhm. moo tax mag ñi wax nañ ne gaynde yi li ñuy dundee ci jinne yi suñ ko doon dundee ci nit ñi ñu jaax gaynde li ëpp ci li muy lekk li ko gën a neex jinne la moom gaynde gaynde léegi jinne nag moo ragal gaynde xeetu ragal bu egg ci su gaynde riisoo garab garab googu xob yaag reen yaag Euh, nu mu tuddati xas maag sunguf sa yëpp da koy daw fu ko cuuraayatee mbaa sangoo ko rek ne fëx na jóge foofu loolu moo war garab googu mooy mën a faj rab dégg nga wax bi mhm. wala garab goo xam gaynde da caa saw mhm. la même chose dañ koy daw ak ban garab garab goo xam ni yo ab yonent daa mës a kerlu ca garab ga mhm. dégg yooyu garab la la la gaynde la jinne yi ak rab ya xeet yooyu ragal dégg nga mhm. léeg am ci garab yoo xamante ne ab yonent daf ab nitu yàlla dafa mës a mës a toog mhm. xeetu garab yi nitu yàlla mës a toog xeetu garab yooyu ak ubbeeku da cay am ndax ñoom ñoo ñoo jagoo ak akbar loolu moo waral xeet yooyu xeetu garab yee xeetu reen yee soo leen di xam soo leen di am d'abord da nga leen di xam mhm. boo leen xamee nag wut leen ba am leen moo tax man daf may jaaxal nit nan lay waaxoo rek dem ni jaay ma sunguf ak ah, gis nga ak falu ak falu mhm. am na ci wàllu falu boo bëggee falu genn euh, garab gu ñu wax rey doon rey doon rey doon mës naa soxla rey doon di ko wut am ku ma ko waxal mu ni ma diw da koy jaay <laughs> d'accord mën naa nekk waaye ak raar pour nit jaay la rey doon ndax rey raydoon garab gu raar la mhm. du du garab guñ naan euh, du sajaratul muayyana maanaam garab guñ naan garab sàngam mooy raydoon déedéet mhm. raydoon mooy garab goo xam daa ñëw fekk garab guy dund ba taxaw mu juddoo ci biir garab gi ray googa ray googa mhm. googu ay reenam ay xasam ay xobam dañuy mën fal nga bëgg falu ci barab garab googu du ci am morom loolu mooy wuutewu euh, mbiru sunguf ak xeet yooyu looloo tax ñi xam loolu nag sunguf du da du yaatu. Mhm. parce que yii ma wax du yu yomb a xam. Mhm. dégg waaw léegi nag euh, su fekkee yàlla dafa dogal comme gaynde riisu woon euh, xay. Mhm. lu tax moo xaw yaatu tuuti. su gaynde riisu woon xay xay googu xay xay. foo dajee teg xay rek jinne da koy daw. olof moo wax baatu ku ndobin rey sa maam foo gis lu ñuul daw. dégg boo gisee euh, xam affaire bi xaw a yaatu tuuti. Mhm. mooy garab cosaanu garab yi maam yee ko xamoon. Mhm. léegi yow yow mi ci jotu jotiwul xay la ngay dem sa riisu foo jëlatee xay dana mën loola ndax xet gi rek la jinne ji di daw. Mhm. dégg nga wax léegi nag yooyu fokk nga jàng ko ba ndax man ni ma jàngee xam-xam alxuraan laa jàngee sunguf ak reen dégg ak xob ak yi ci aju comme ay paftan ak nangam-nangam bu nekk ak lëmbën yooyu dañ ko jàng. dégg yooyu nag dañ ciy defar ak ubbeeku moom moom sunguf si sunguf mhm. dañ ciy jëfandiku ci wàllu ubbeeku mhm. ku bëgg ubbeeku euh, euh, ku tëju woon mhm. bëgg tëju gi dañ ku cat jàpp surtout dégg ak ay xeetu cuuraay yoo xamante ni dañ koy mixé pour ñi nga xamante ni rab daf leen a ëpp doole ba xiirtal leen ci duñ nangoo sangu ndax am na koo xam saafara boo ko joxoon léegi bala dina yëngu-yëngu tuur ko du ko sangoo Mm-hmm. bu boobaa da ngay fexe ba mu nekk ci néeg nga cuuraay fa cuuraay yooyu loolu moo waral tabaarakallaa mooy différence diggante euh, reen ak sugg fa xeet yooyu mm-hmm. ak alxuraan mm-hmm. mais bu fekkee ci wàllu boobu ñaar yëpp dañ koy jëfandikoo di ko booleente te fekk muy dagar incha allah macha allah loolu loolu am na solo loolu am na solo ci diggante sunguf ak euh, reen ak euh, alxuraan waaye xam naa fi njëkkante rek mooy que ne xaa xaatim yi léegi daf mel ni léegi nit ñi moom ku jug dog te itam <laughs> doge ni daa mel ne léegi daa bëri xeetu doge ni xaatime yëpp dafa bëri te itam man na ne léegi daal ku jug la daal jëm jëm ci dem ci man kataba yi comme noonu ñu ko waxee man kataba yi jël si jël am benn téere bu gaa yi bind rek nga jël yow teg xoo ku ñëw nga ne ko kaay bindal la bindal xaatim jox ko xaatim daa mel dafa am ay yoon de ci ak defar defar xaatim dafa mel am na yoon te dafa mel ne liggéey yi tamit am na yoon ndax colin wi colinu xaatim gi ci ci biir kër yi daa mel ne am na aw yoonu mu war a jaar ok léegi nag bindum xaatim tamit am na fu mu war a jaar te bu ñu doon leeral ci xeet xaatim yi ak liggéeyeen liggéeyeen bi tamit xam naa njëkkanteeg waxtu rek si la incha allah tabarakallahu xawaatim yi gën a jafe ci xam-xam lasraar moom ci la bokk mhm. parce que dafa am yu bari yum soxla moom xaatim mhm. euh, xaatim bu nekk am na waxtu wuñ ko war a bind moo tax foog nga xam almun nujum almun falak foog nga xam ko mhm. doo nga xam xaatim bi ngay bëgg a bind ban waxtu lañ ko war a bind xaatim booy bëgg a bind itam am na bis buñ ko war a bind mhm. dégg nga mhm. xaatim booy bëgg a bind am na cuuraay bu ñu war a taal pour bind ko mhm. dégg nga wax bi xaatim yi comme soit nga ni musallas murabba mu xamas yooyu xeetu xaatim yëpp benn bu ci nekk dafa am bunt boo koy duggee ak bunt boo koy terminé su fekkee soxla sàngam la su fekkee da ngay bu dara buntu sàngam nga koy duggee bunt sàngam nga koy tëjee bu dee da ngay defoon dara buntu sàngam nga koy ubbee buntu sàngam nga koy tëjee bu fekkee ku ñu liggéey la nga bëgg mu dañ buntu sàngam nga koy ubbee buntu sàngam nga koy tëjee maanaam xaatim presque nit la peeg naa xeetu xaatim yëpp te deewul mhm. maanaam dajul lu ne mhm. néew na nit ñi nag léegi li ñuy def mooy kamaatara waaw ah. ndax léegi da ngay dem marché sax da ngay dem fekk gars yi jël ay xaatim di jaay. di jaay ak gars yi yi gars yi ëw bari di jaay. dégg da ngay fekk ñu jël ay xaatim di ko jaay. <laughs> Mhm. Euh, man bi ma njëkkee. bi mu njëkkee gis euh, benn mbokk mu teg mu teg xaatimu Souleymane. Mhm. xaatimu Souleymane di ko jaay dama tiit xaatimu Souleymane. mu teg xaatim bi ni juróom-ñaari ca juróom-ñaari bët ya mu di ko jaay damay xool xaatim ba mu yàgg man lii de moom fii lañ jëmoon egsi nañ fi maam teg xaatim bind ko ba pare teg ko di ko jaay te xaatim xaatimu Souleymane boobu am na am na lu wat ñeen fukki façon bindin ak benn hmm. te. ñeent fukki façon bind yooyu ak benn benn bu ci nekk ak waxtu wi ñu ko war a bind. Mhm. su fekkee yoon wañ cay fajee rab sax diggante tibis ak gee képp lay dox boo ko bindee beneen heure bu dul boobu du maanaam loo ca bëgg li nga ci am ci naqar lu ko toll. moo tax bari nañu jógoon pour faji rab faf jëlee fa yokkuy rab. Mhm. dégg nga wax bi. Mhm. parce que xaatim dafa am heure buñ koy bind. xaatim booy bind dafa am cuuraay boo ko war a bindee xaatim booy bind dafa am parfum boo war a xeeñ yow pour bind ko. parce que rawxaan yi wara doxal khatib bi su yoyu dajewul duñ jóg khuddam yi wara a liggéey ci khatib bi dak rab ya fa nek su yoyu dajewul duñ jóg nak kama tara da ngay def ko dajé rek mun la waaw kii ki yu ñuy weccee koo ngi ni xaatim sulayman nangam nangam tara moy ben way jox na la ben khatib rek ga teg ko sawet sa yo bëgg ku la ko diisati soxla rek nga xol khatib bi copier ko jox ko ni ko xoojal defal lii sangool nangam nangam moo waral Sénégal mhm. problème bi ñu am mooy problème mu sëriñ d'abord. Mhm. ok xam naa sax foofu la ñuy foofu la ñuy foofu la ñuy ñëw parfait ñu mën cee jaar sax mën a yëkkatiwaale ci kanam ñu mën a tàggoo incha allah maanaam bu ñu doon soññ rek ci ci xeetu ci xeetu sëriñ si léegi dafa mel ni dafa bëri comme ni ma ko waxoon sama njëlbeen wax sëriñ si bëri na yi bëri na. def daf yi bëri na fu ne waay juna fa ne def defi annonce maa man nangam ma man nangam ma man nangam tey bu ñu doon def ay kàddu yu soññee wala kàddu yu leeral kàddu yu ndénkaan ci ñun si sunu biir ñun sëriñ si laay wax ndax na maan man tey jël boole ko sama biir ñun sëriñ si xam naa damay daal di wax ko incha allah rabbi salaamaaleykum allo salaamaaleykum <laughs> macha allah ñu ngi koy ñu ngi koy tuubal bu baax mbokk moom xam naa mën naa wéy rek ànd ak ñun 88 628 19 05 88 629 05 wala def 88 628 81 88 628 81 08 sëriñ si daf ma ne nañu tey doon wax ci ak mel ñun nga xamul ñi xamul fexee xool nañu def ñi xam tamit fexee xam nañu def te lan la ñuy mën ci ci ci ci man de maa ngi ciy jéem mën mhm. parce que bari na bari na ñoo xam ni boole na ma ak leen di xam ñu lañ mhm. def ndax su léeg-léeg ma dégg surtout ci réseaux sociaux yi. Mhm. nga joxe benn kayfiye ma xool xam ne kayfiye bi dafa dam baa ma dégg nga joxe benn kayfiye mu leer ma ne lii xamoo ko. Mhm. Mhm. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa si ñu ngi lay ziar. alhamdulilah tabarkalla. Mbacke. sant naa suñu tubaab bu baax. kooku. soxna Fatou la. soxna Fatou ñu ngi lay ziar bu baax. waaw fii ci daaray Touba Porokhane. ah ndeysaan soxna Fatou ñu lay siyaar bu baax alhamdulilah. kazaalika. tabarkalla alhamdulilah. waa di am kontaante bu baax a baax. ndeysaan Cheikh Amadou Tidiane. ci sunu mbokkum taalibe moom. ndeysaan macha allah alhamdulilah. bokkee ci wàllum ci waawoon gi. Mhm, ndeysaan. te gën ñoo bëgg Serigne Touba. alhamdulilah ndax yàlla ndeysaan. macha allah. Mhm. ñoo ngi koy sant nag bu baax a baax. ci lii mu def nii ci rëddu Touba ak Mbacke. nitu yàlla pire ngi noonu. ah alhamdulilah waaw mu ngi. nitu yàlla 100 pour cent. ndeysaan. moo ngi noonu imaam a ngi noonu. Mhm. yàlla na ko suñu borom lafal cat. amiin baakar suñu Tuubaa. te ni mu tàmbalee nga xam ne lépp yàlla la. Mhm. yàlla na ko àggale àddunaam. amiin baakar suñu Tuubaa amiin barke Seydina Muhammad. wallaay ndeysaan baakar suñu Tuubaa. ñun nag waa Touba Poroxaan. Mhm. bopp bi di soxna Jaara Faal. ak bàjjen say ndooy. ak soxna Fatou Gueye ñii di wax ak ñun ñooy war ñoo la bëgg a dëggalal ci sëñ boobu di wax nii. Mhm. lépp lu mu la fi wax rek. Mhm. lu nekk ci moom la. wallaahi ndeysaan waaw. Mhm. amul dara lu wul foofu ci li mu wax lépp nag. ndeysaan. bu dee ci xeetu xam lépp lu la ci wax rek. xam na ko. ndeysaan wallaahi. bu dee ci wàllum ñaan. macha allah. ndeysaan. nu mu la ko waxee rek noonu lay amee. ndeysaan alhamdulilah. lépp lu mu la wax ci wàllum woowu nag muy ay. biir ay jafe-jafe mhm. la koy teggee. wallaahi ndeysaan. te nag a tax na yàlla def jot. amiin bàkk suñu Tuubaa. te li ko tax a ñëw ci pàkk bu sell bii. Mhm. lépp luñ fi am rek yal nañ ko Serigne Touba boole. amiin amiin. yàlla buñ ko fi ëppale dara. amiin incha allah ndax Serigne Saliou rek a nekk ci xolam boobu. ndeysaan wallaahi ndeysaan. Mhm. Serigne Touba rek a nekk ci xolam. ndeysaan alhamdulilah. gaa ñu baax ñi rek nag lay wër. ndeysaan. moo ko tax a dikk fii. ndeysaan alhamdulilah ak ma jox la bàjjan sa na yàlla nangu saa yëpp. alhamdulilah tabarkallah. waaw waaw yéen a am liggéey doomu aadama yi daal yàlla na sama mm. borom jàppale. amiin amiin yaa rabbil ndax saa yi boo gisee xam ne jëmmi Serigne Touba fi moom. ndeysaan alhamdulilah. ñun moom la woon fii mu nekkit nag. ndeysaan alhamdulilah wàccee fi ne. ndeysaan ak liggéeyal Serigne Touba. alhamdulilah te loolu nag lay ak yàlla ay kese. ndeysaan alhamdulilah kon. bëggul alalu àdduna dara ndax bu ko bëggoon dal ci suñu daara ji. ndeysaan ndeysaan waaye mm-hmm. bëgg ñoo jàppale. Mm-hmm. ak ñu xam gën a xam daara moo tax mu dal fi ndeysaan alhamdulilah kon nag ñu di ko sant bu baax a baax mhm. masha allah tabarkallah eh, cheikh bi yaakaar naa yaa ko déggandoo ci ci mbokk yooyu nga xam ne ñu ngi defe seen contribution ci ci ci liggéey bi kon li day dina ni loolu wolof naan CDS CDS mbay ndàgga Ah, kay CDS mbay ndàgga kon mbokk yi ñu ngi apprécier di leeral ci ci liggéey bi waaye loolu tamit day wax ne rek day wax ne rek na nañ xam ne cheikh bi ñew na ci mbacke ak touba waye inshallah tamit ñëwaat na ci bool ma jaa fas yéene ànd ak waa bool ñëpp ci xam-xam inshallah te itam di yëngu ci walam ñaan ci xeeti ñaan yi inshallah faj haajo yi ak dimbalé jaamu yalla yi ak dimbalé talibé yi rek moko ko tax ba taxna mu ñew ci bërëb bi fasine and ak mbokk yépp ci fànn bu ne nak inshallah lolo tax cheikh bi ñew kon cheikh yaaka na ñi ngi won euh, ci ci ci serigne ci rek ginaaw bi nga ginaaw bi nga siaré mbokk yoy nga xamna ñoo doon woté nga baarakallaahu comme ni mu ko waxee léegi mhm. ñooñu ñu baax lañ mhm. euh, ginnaaw yàlla mhm. ñoo ma dalal fii ci Touba sëñ Massamba moo tax ma ñëw fii sëñ Massamba xel ko moo tax ma ñëw fii euh, ngir yàlla ak kóllëre gu yàgg ci sunu diggante waaye yàlla dogal na loolu muy junju du koy sax nëbb man yàllaa ma boole ak sëriñ Touba ma soppal ko sama bopp tànn ko ma cëroo tamit ci sëriñ Saalihu Mbacké eh, radiyallahu ta'ala anhum hmm. ñu nek ñoo xam yalla ma leen sopp la bari na ci Touba gi ku ma miin mbaa nga xam ma yaa ngi ma miné ba nga xam ma à cause de tabarakallah ki dekk ci ngaabu mhm. euh, sëñ Modou Lo ngaabu mhm. tabarakallah ngir yalla ak mbaaxam ak yal yalla mhm. yàlla ko ta taxaw ko momit ci barke yonu bi sallallahu alayhi wasallam waye pour wax ni Serigne Touba boobu muy junj man sama cër la. Mhm. Sëriñ Tuubaa sama cër la. yàllaa ma ko séddee. Mhm. maa ngi ko dama koy faral di nettali léeg-léeg ma ni leen. Mhm. yàlla dafa ma mës a nattu ma am lu ma doon liggéey. ndax booy am na yenn xeetu liggéey yi boo ko dee liggéey. boo gisewul ak moom loola baaxul. yàlla nattu ma ma gis ko ci gént mu ni ma Cheikh ma ne ko labbayka mu ne ma Cheikh Tidiane yow loo jaay mu jar ndax danga maa sopp maa ngi koy seede loo yàlla ci sama kaw bàmmeel laa taxaw mu wax ma loolu. lii nag awma lu ma ko dàqal. Mhm. tabaarakallaahu soxna jaara nag muy borom daara jii di tuubaa Poroxaan mhm. amul morom ci mbaax euh, soxna jaara Fall mooy da borom daara yi Touba Poroxaan mhm. dafa baax lool ba pare jéem a doon lu su turandoom lee xew ca daara yi Poroxaan loolu la indi ci daaraam ji fii mooy ku ko indi am soxna jaara doo fay da koy jàngal alxuraan yar ko te doo fay te yar gam gama fekk ca daara ja yéem na ma ci ak yaru maanaam pour nga xam ni pour nga xam ni maanaa ak taalibi rek a ñu ñor. Mhm. bi ma dikkee ci dëkk bi kër commandant Cissé laa daal. Mhm. kër commandant Cissé. Mhm. sëñ Massamba bi ma dalal dama ko wax ni ko man de fii gënaluma li ma gënaloo mooy ma dal ci daaray alxuraan ndax man damaa bëgg di dégg alxuraan. mu tànnal ma ñooñu. Euh, so euh, bàjjen say moom moom kenn gënu ko ci baax moom moo doon wax. kenn gënu ko ku yaatal la ku bi ma gisee rek la ni ma xamoon naa la lu jiitu tey. muy ko baax di koo xam ne amul morom ak soxna Fatou yal na yàlla sàmm leen defal leen teraanga dañoo baax rek mhm. tabaarakallaahu su fekkee damay tëgg nag ci sëriñ si nga doon wax waaw mhm. ñun en tant que ay taalibe mhm. ñun ñoo war a defaraat suñu toogaay ah ñun ñoo war a defaraat suñu toogaay sëriñ si léegi métier la ñaan métier la léegi métier la mu ñuy wutee xaalis léegi njaayam ndox ni ko woowee business la waaw njaayam jërëjëf <laughs> business la maanaam dañ ci wut xaalis kenn ku nekk wut nga sa ruq collaboré woog ñu ngay collaboré naan kii del daanu kii di def lii kii di xëpp ndox kii yor wàllu média bi pour rien que rek nañ am xaalis nga am xaalis man euh, maa ngi fàttaliku yàggul dara mhm. am na benn mbokk maa ngi koy nettali démb rek mhm. mhm. arkalla salaamaaleykum allo tabarkalla ah, dem na tabarkalla aha cheikh yàggul dara daf ma woo ma ñëw mu ni ma soo bëggee ma boole la ak diw mu feeñal la waaye nag danga koy daggal salaire ci sa liggéey temps parweer xoolal lool yow sëriñ bi nga daggal nit salaire yow yaa jàngi woon daj lu ne pour ni da cee bëgg dimbali jaamu yàlla yi dem ba mu yaa ngay daggalaata salaire pour ñu siiwal la dégg mhm. maanaam nit fu mu war a wooteel pour bi pour bi baatu pour lim ci war a teg mhm. mooy pour nga jariñ njulit yi mhm. pour nga jariñ leen pour li nga am ci xam-xam nit ñi jot ci mhm. waaye pour wax la ne fi jamono toll ñun ñoo war a xool ñi ñuy jëflanteel mhm. ñu natt leen ci diine natt leen ci ak taalibe natt leen ci jikko ba ñu doy nga doog a jëflante ak ñoom ci xam-xam. macha allah kon nag tabaarakallaahu. jërëjëf tabaarakallaahu euh, macha allah am na solo lool am na solo xam naa waxtu yi sax moo ñu ko moytu waaye kon dañuy gën a développé waaye tamit yoon yi mu ci benn te incha allah rabbi dina gën a yaatu. soobee yàlla ndax xam-xam dafa dafa dafa dafa am solo te itam li ngay leeral nii bu ko boroom xam-xam déggee dana xam ne xam-xam mooy balla te itam comme na ko xam-xam moom xam-xamu bokku ci xamu bokku ci te yaakaar naa lii bokk na ci li ko wane kon Cheikh bi dama lay bàyyi rek nga mën a tàggoog mbokk a leeralaale sa adresse waaye tamit xam ne fi ngay nekk ak tamit numéro téléphone bu baax a baax mbokk yi incha allah tabaarakallaahu xanaa santaat yàlla bu baax alhamdulilah di ñaan yàlla yàlla nanu yàlla doolu taxaw sutura bi nu yàllay may muy wér ak xéewal yam ca mhm. yàlla na nu yàlla saxalal ci yooyu yëpp mhm. may nu ab xol ci bu dellu ci wàllu muñ ba lépp lum ñu xañ ñu muñ ko ci mbaaxam ak suturaam mhm. yàlla dogal na ñëw naa Tuubaa ñëw naa Mbàkke di gan waa dëkk bi yëpp di wax waa dëkk bi yëpp tamit sama ñëw gile de li nu ci jublu rek mooy jokk ak bokk waaye jariñ jullit yi ci li nga xam ne moom la nu yàlla sédd ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax naa ko sànq fi nu dal mooy euh, tabaarakallahu mbàkke mhm. ci côté ñaari Baay Faal yi mhm. daaray tabaarakallahu soxna jaara muy daaray Touba Poroxaan mhm. Touba Poroxaan la daara ja tudd am ay xale yuy jàng di wàcc am xale yoo xam dañ fa féete nekk internat di fa jàng alxuraan ñu di leen tarbiya tabaarakallahu am ay jirim tamit yuñ fay yar maanaam yàlla dafa nattu borom daara ji dafa bari yërmande ba bari yërmande gi ëpp mhm. ba ku ku yàlla na toog nga amub jirim soo ñëwee dafay xool ci ni ah tabaarakallaahu lii kat moo départoon lislaam te mooy yonent bi mhm. xalimatu saadiya ma ko yar mhm. da koo téye woon ndax jirim la kon moom it ku ko indil jirim rek mu téyel la ko ñooñu laay sant gërëm leen fii sama wëy ju rek fi ku bokk ak sama papa ndey ak bàyyi di góor topp ci sam papa mhm. mi ngi ci dëkk bii bërki dem laa dem këram mhm. ziyaare ji ko ndokkeel ko mu nekk taalib bi bu mag di bàyyi faal ci dëkk bi mhm. yàlla na yàlla sàmm ko mu dëkk tindoo di tabaarakallaahu sunuy doomu bàjjan nekk fi euh, boo demee ba tabaarakallaahu jannatu am nañ fa ay wóllëre ak ay soppe tabaarakallaahu di wax ñëpp rek fi nu dëkk mooy ñaari bàyyi faal ya ca daara ja euh, soo ko paasee tuuti rek boo laajtee daara yi Porokhane danañ la expliquer fu mu nekk. Mhm. su dee numéro téléphone bi ñuy jotee. 77 mhm. la. 494. 59. 04. 77. 494. 59. 04 su écoupé da woote ci 78. 439. 70. 87 boobu li ëpp day firi gént. 78. Mhm. 439. 70. 87. seen mbokku daara taalibe xutbul maktum. Mhm. Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Diop. Mhm. jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah tabarkalla mbokk yi xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci Bawal Média FM 88.5. noonu comme ni nga ko déggandoo rek Cheikh Ahmad Tidiane Diop al maktum tey moo ñu àndaloon ci jotaay bi ci Bawal Média FM 88.5. doon fi la seq ay laaj ak ci xam-xam waaye tamit ci fàll gi nga xam ne yëngu mooy ñaan. moom nag mi ngi nekk Mbàkke ñaari Baay Faal ci daara daaray soxna jaara euh, wala nga dem xayra fekk ko fa incha allah ci daara yi waa kër suñ Masàmb Xelkom foog ma fekk numéro téléphone benn la mën nga ko joo ci 88 77 494 59 04 494 59 04 Sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Diop Al Maktoum tabaarkàlla moom la ñu àndoon jotaay bi. di santaat bu baax di gërëmaat di wax na rek xaar leen ko incha allah dinañ ñëw ci Baol Médias ànd ak mbokk yi ànd yi ànd ak xarade ak wëllëre yi pour waxal leen xam-xam leeral leen xam-xam ci seen i jëmm ak ci seen i yaram ak lu waay mën di jàngoon del ci jafe-jafe rek kaaraange ak yëpp fi man moom xam naa ne ndomba yi moom faaw faaw nga wut faaw nga wut ma <laughs> ci rek ko defee ma ànd ak gars ñu ngi jox rendez-vous ñëpp incha allah beneen beneen beneen jour beneen heure incha allah ci jotaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh نجاني العليم والخبير وجعل للواسع والكبير